ñaari waxtu ci ngoon tooftal fanweeri minute ci marché Ocass bu Touba jaaykat yi di fobu di tëj seeni cantine arrêté préfectoral bu département bu Mbacké moo fi jaar ab communautaire coronavirus am ci dëkk bu sell bi di Touba di commerçant toll ci juróom fukki ak juróom doon jaay ci marché Ocass bi taxoon préfet bu département bu Mbacké Diop dël dogal marché yépp rawati bis bu ne bu ñetti waxtu ci di 15 heures commerçant yi wax ne fagaru moo gën faju euh, ndigal li de ñim rek ñu ko ngir xam ne euh, euh, ndigal la pour euh, maanaam sunu njëriñ la ñun ndax wàcc heure bi neexu ci kenn ndax da ngay xëy ba ngoon sax doo soxee ko waaye tamit situation moo ko laal laaj ndax comme dañoo wax crise sanitaire moom moo indi crise économique ñu xam ne ñun ñëpp nag ñoo bokk te wér moom moo nekk ci kanamu lépp moo tax ñu ànd ak kilifa yi lépp loo xam ne si ni jëlee nañ ko comme ay décision ñu jéem ci ñu ñu ñu jéem ci ànd ak ñoom ngeen ko gisee mooy xanaa baax rek wax dëgg yàlla ndax ñun moom suñu wér yaram rek moom mooy ñor te lépp luy indi wér yaram ci dëkk bi moom dañ cee war a ànd ñu koy rafetlu bu baax di ci rafet rafetlu tamit euh, ci heure bi koy jël donte sax métti na waaye ak wér moo gën lépp wér moo gën lépp te ñun ci rek la ñuy dox luy doxal dëkk bi rek ci la ñuy dox dañuy fexe ba cas yi fi am yëpp yàlla def ñu ñu dimbali ñu mu jeex ba xam te mbir dootu fi amaat te ñu fexe ba fagaru ba dootuñu dal ndax fagaru moo gën faju euh, boo xoolee marché bi moom yërmande kese la bari na fi ñu fi daw li fi ñëw ñoo xam amuñu fi ay place ci bisu set la ñuy jëlee dépasse euh, rax ci dool yi am na ci ñoo xam ne fa ñuy jógee dafa sori ca sancaani la ñuy jógee tey ji boo leen wàccaloo 15 heures fi ne mën naa ne ba ñu commencé wàcc 15 heures ba léegi bari ñu ne ci marché bi ñoo xam ne añaruñ duñu añee ci marché te loolu xam nga ne métti na ci nga xamante ni day daan dooleem yorut téeméer ku téeméer boo ñibbee të doo tala jënd añ moom xaw na métti tuuti ci commerçant yi ndax xëy xëy 7 heures wàcc 15 heures ku ne xam ne métti na waaye nag comme ndigal la dañuy fas yéene tënku rek ndax comme kilifa yekk décidé te liñ ci jublu mooy defar mënuñu lu ànd ci ànd ceeg ñoom te ñaan yàlla eh, li ñuy xeex muy Covid 19 mu jóge fekk jàmm balaa yàgg. ñu ngi wàcc nii balaa 15 heures dinañ ta incha allah. Ah, Ah, métti na ah, méttiwul parce que moom ah, si côté parce que tamit benn message ma jàll dafa métti benn message boo xamante heure bi jotee rek trois ñëpp tëj dem seen yoon donc am na ñaan añee si place yi ñoo xam te de yooyu noonu moo sañoon daal bu fekkee fukki place ñu indi añ juróomi place yi ñëw bàyyi bool fii même dañuy ñibbi seen kër sax ñu indi ñu indi leen bool bu ndaw ndax ñu mën see jariñu parce que ñoom fii laan lekkee amuñu fenn fu ñu lekkee sa Touba dañuy dëkku xéwal donc bu defee loolu dina xaw a métti lool euh, si gars yi nga xamante ni maanaam ñoom euh, daan na añee si euh, si place yooyu noonu. dogal bi de ah, ñu ànd ci rek te di ci woo mboolem ñin bokkal assise section Touba di woo si ndogal bi ñuy wax trois heures ji ñu respecté ko pour 2 heures et demi jotee na ñëpp wàcc seeni porte balay 3 h kenn ku ne mën a génn marché bi. ñaaxaat suñu mbokki commerçant yi rek ñu gën a moytu daal ñu moytu bu baax a baax ñu doon moytu waaye ñu gën a moytu rek ba lii ñuy fi dégg buñ ko fi déggati waaw fépp foo ñoo xam te nañ fay woo woo nit ñi dañ fay dajaloo ñu moytu ko. waaw dama leen di wax di leen ñaax te ñu xool ci yeneen réew yi nga xam ne actuellement. Euh, mbir yi ma nga fa ñu jàppee ko noonu xam ne àdduna bi du Sénégal du Afrique mais àdduna la te fa mu jiite woon euh, fa mu njëkkee muy euh, chinois yi ñoo ñu gën a actif foofu ci liggéey te teewul ba mu ñëwee bi seeni kilifa jëlee ay dogal dañoo ànd ak ñoom ci dogal yooyu ba tey jii ña nga continuer seen liggéey kon dafa mel ne situation bi euh, du doon loo xamante ni day yàgg bu fekkee ne respecté nañ décision yi nga xam ne moom la sunu kilifa yi jël day nekk loo xam ne si ni dañ koy. Euh, day metti mais du yàgg ci lu gàtt ñu door a continuer waa suñu activité danañ moytu nag fu luñ mën ci wax ci nit ñi ñu moytu tawat ji ndax budul bu la dalul tamit man man daanaka mën naa ne ñun ñëpp a tawat fi ne coronavirus bi moom dañuy wax ñeneen ca hôpital bu booy xool sax ñoo ñoo ñooñu ñoo gën sax am wér gi yaram ñi nga xam ne ñoo ñooy dox suñ mbokk commerçant yi liñ leen ñaax mooy gën a affaire yi te ni ñi koy def ñun sax taxu leen leen a jóg ndaxte boo xoolee ñi koy deflu ñoom nekkuñu fi waaye ñun taxul ñun ñoo tax ñu koy def pour pour suñu wér-gu-yaram a tax ku la xam te nag moom sa wér yaram moo tax li lay wax dangay fexe ba jàppale ko ndaxte ku naan la sangul ko ne sa taar la la bëgg loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ kon dañuy fexe ba ñu ñuy wax ñu jéem ko rek ñoom it ñu leen di ñaan it ñu gën ñoo yërëm rek ci xam ni am na ñoo xam te dem du yomb te buñ ñu bëggee jox seen noonu mu gaaw rek xëy na duñ ko bëgg waaye am na ñoo xam te ñëpp yéene ji mooy pour euh, mu feebar bi jeex fi tàkk boo kenn dootu ko fi dégg kon liin leen di ñaan moom ñu boo dugal yërmande di xam ni comme ñi fekk ñeeg ci biti nii di bëgg a dem ñu may leen ab temps tuuti ñu dem bu ko defee du am benn jafe-jafe. ki nga xam da ngaa xëy si di liggéey yaa gën a feebar ka nekk hôpital wala ka kañ quarantaine ndax sëñ bi nit ki amul lu la muy dundee su ko amatul daanaka dafa tawat fi nit ñëpp a feebar maanaam bu ñu amoon lu ñu mën a wax nga dañ koy def dañuy ñëw quarantaine waa marché bi yëpp ñu am jàmm. mu tolloog fukki fan ak ñett ci weeru avril ci atum 2020 ne jamono ji centre de santé bu daaru marnaan benn soxna képp moo fa ne di faju ne commerçant ba dañ ko mujj yóbbu Dakar ñi nga xam ne jot na leen teste te nu njort ne dañu ko jege ñoo ñi amaguñu loolee nga xam ni mooy coronavirus